الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ngi delli siwaat ak yéen tey di ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru muharram ci atum 1440 yi tombeeg juróom ñaar juróom ñaari fan ci weeru octobre 2018 ñu dellu si ci suñu téere bi di bulughul maram bu alxaafis ibnu xajar rahimahullah ñu yegsi woon ci ñaareelu bunt ci la nga xamee ne ni mooy kitaabul atima ñuy war a jàng tey baabul adaahi mooy bunt bi jàngale ci wàllu tabaski yi mi ngi noonu baabul adaahi mooy buntu tabaski ya maa ngi ci mille trois cent soixante treize ci mool bi nga xam ne moom laa yor ca xadis bi ko ubbi di an anas ibn malik radiallahu anhu
الباب الثاني باب الأضاحي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقلين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفافهما وفي لفظ ذبحهما بيده وفي لفظ سمينين ولأبي عوانة في صحيحه سمينين للمثلثة بدل السين في لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر وله من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أمر بكبش نقرا يضع في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي فقال اشحب المذيع ثم أخذها فأرجعت ثم ذبح فقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد أمة محمد ثم ضحى صلى الله عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الأئمة غيره وقفه
bokk kon bunt bi ñu dal mooy baabul adaahi mooy buntu tabaskiya lañ ca jublu mooy lañuy rey ci bisu tabaski nga xam ne ci ñeenti mbir lay doon imma mu nekk xar walla mu nekk nag wala mu nekk giléem wala mu nekk bëy mu ne mu ne an anas ibn malik radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين yonent bi day da daan tabaski ñaari gàtt aqranayni yu am ay béjjén wa yusammi daana tudd yàlla wa yukabbir daana màggal yàlla wa yad'u rijlahu ala sifaahihima daana tegit tànkam ca la nga xame ne nii mooy kaw seen loos ya mi ngi noonu ya wa fi lafz zabahuhuma bi yadi am na foo xam ne danaan moo ko rey moo leen rendi ci loxoom muttafaqun alayhi wa fi lafz saminayni am na beneen boo xam ne moom danaan saminayni mooy yu cher wala abi owaana fi sahihi soo demee mi ngi doon saminay ni mooy loo xam ni dafay duuf am graisse mu ne boo demee ca abi huwaana fi sahihi mu ne saminay ni yoo xam ne nii yu am prix cher la bil musallasa ca mooy moo tax mu def sa boobu badala siin lu bokkul ak siin bi wa fi lafzi li muslim wa yaqulu bismillah wallahu akbar mbokku xadis bi day woni sunu ki ñuy tudde qadim rasul muy anas ibnu malik radiallahu anhu mu ne benn tabaski day yonent bi indi na ñaari xar yoo xam ni dañoo am ay béjjén mu rey leen bam leen di rey dafa wax bismillah jàngoon nañ ci dars bi passé ci ne jullit fokk la muy rey day wax bismillah ba lu bari ca borom xam-xam ya ni même bu ko fàttee yàpp woowu kenn waru ko lekk mi ngi noonu gannaaw ba mu wax allahu akbar soo demee ca fin xadis ba fam lay wax muslim soloo na ko muslim moom daf ne daf ne bismillahi wallahu akbar muy wone ni rey ren di leneen lu mën a doon bismillah rek doy na ca bu dee tabaska it bismillah doy na ca waaye bokk na la ca gën nga dolli ca wallahu akbar ndax suñu borom dene li tukabbirullah ala ma hadakum ngir ngeen màggal yàlla ci lim leen jubal ci bàyyi may rasul sallallahu alayhi wasallam ba mu koy rendi li ñu miin fii ñun da ngay woo ku la ñat dal waaye nee na dafa jël tànkam teg ci loosu xar mi daal di koy rendi te loolu it muy wane ni doomu aadama moom kese mën na reyum xar fekk kenn ñàddalu ko ko mbir mi rek mooy fexeel ba dagg baat ba lañ cay tudd put gaag sujjit yi nga xam ne moo ko siq mu waxit ne moo ko defal boppam loolu muy wane ne loo nekk nekk kilifa lii ak jaamu yàlla la nga defal ko sa bopp moo gën nga jox ko keneen waaye mënees na koo jox keneen dagan na sa tabaski nga woo keneen mu rendil la ko doonte ne bu boobaa sopp nañu nga teewe fañ koy rendee mi ngi noonu jàngoon nañ ci dars yi passé it ni ndekete jigéen mën naa rend ca xadis bañ doon jàng soxna sa nga xam ni benn gàttam la ñëw rendee ko ak benn xeer yonent bi alayhi salaam ni lekk leen loolu gis nañ ni lu mën a nekk la donte ne daan ca dolli it ni nit ki nekk gaucher mooy càmmooñ ku mel noonu mën naa rendi loolu it da ngay gis ni tëral ba ñuy tëral xar mi mi ngi àddu ci fan la ko kay ren di gën a jekkoo bu dee ni kii ren de ndey joor lu ci bëri ñu tëral xar mi ci côté càmmooñam moo koy gën a jekku waaye bu doon koy rendee càmmooñ mën na wëlbati xar mi tëral ko ci côté ndey jooram ngiree gën koo mën a jekkoo loolu kon la ñuy wax ci wàllu googi ci tabaski rendil waxal bismillah léegi nag ñu doon génne xadis yi dañu am na ñoo xam ne dañ ne sami nay ni mooy yu duuf la am ñu ne sami nay ni ay yu cher la te daanaka amul contradiction en général xar mi la gën a duuf mooy xar mi la gën a gën a cher donc donte ne ne borom xam-xam yi dañu am ixtilaaf ci waa ji masalan demoon jënd benn xar ci trois cent mille xar mu duuf mu baax ci trois cent mille ndax ki jënd moom ñaari xar yi cent cinquante mille ndax loolu gënu ko loolee mbokk la ca borom xam-xam yi di wax mooy bu dee ne waa ji kër gu mag la yor sa boobaa nga xam ne benn xar bi mën na leen bañ a doy mu jëndoon ñaari xar mooy li gën amma bu dee ne benn xar bi dana doy waa kër gi jënd benn xar bu cher bi ca duuf moo gën tasaare ko ci ay xar mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam ci xadis boobu suñ jëlee xadisu ñaareel bi mu ne walahu min xadisi aisha dana ñeel ñooñu nga xam ne ñoo génne xadis bi ñuy jàng sànq ci loo xam ne suñu ay aisha moo ko nett bi radiallahu anha amara bi kabishin aqran yonent bi day digle nañu indil ko gàtt boo xam ni dafa am béjjën yata u fis sawa day doxe ci lu ñuul ay cati tànk yi dañoo ñuul wa yabruku fi sawa day bóof ci ñuul ay suufu biir ba dafa ñuul wa yanzuru fi sawa day xool ci lu ñuul ay la wër bëti yépp dafa ñuul mu ne li yu daxiya bihi ngire yonent bi bëgg koo fa seeni tabaske fa qaala ishazil mudiya mu ne ma ay Aïcha daasal ma paaka bi summa aqadaha gannaaw bu mu daal di koy jël fa adjaahu mu daal di tëral xarma summa zabaha gannaaw ba yonent ba rendi ko summa qaal bismillah allahuma taqabbal min muhammad wa ali muhammad ay yàlla nangulal muhammad ak njabootu muhammad wa min aim wa min ummati muhammad summa daxa bihi gannaaw ba mu daal di koy rendi mbokk xaalis bi yaay Aysa nettali moom dañuy won ne yonent bi tabaski gi benn xar la rey xaalis bi ci gannaaw day wone ñaari xar la rey te boobu it soo dellu woon ci yeneen riwaaya bi muy rey benn bi def ne yàlla nangulal muhammad wa ali muhammad ci benn bi mooy muhammad ak njabootam beneen bi ba mu koy rey mu ne yàlla nangulal ñeel képp koo xam ni tabaskiwul ci sama xeet rey jeneen bi te mooy kon rasul sallallahu alayhi wasallam noonu la defee fukki tabaski la fi fekkee mi ngi noonu ca madina yonent bi alayhi salatu wasalaam bu dee fii Aïcha netti li moom radiallahu anha benn xar la rey la rendi ba mu koy rendi it sant na yaay Aïcha mu daasal ko paaka bi te loolu da ko doon santaane xadis bi ñu mujj a jàng dimanche passé bokk na ca kii dem bay rendi nay daas paakaam nay dalal la muy rendi te mooy paaka bi da ngay dem ba wóolu ko doog koo jël di ko rendee mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tëral xar mi ci boppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko rendil boppam ba mu koy rendi wax ne bismillah yàlla allahuma taqabbal min muhammad wa ali muhammad ca it loolu bokk na lu ñu sopp donte ne yéene ci xol lay nekk waaye sopp nañu ci heure booy rendi tabaski nga wax bismillah allahuma taqabal min bilal Thiam wa ali bilal Thiam mi ngi noonu boo ko mënee nga wax ko ci njaago wala tukulóor lu ko mën wax ay yàlla nangul ma ko maag sama njaboot bokk na ci loo xam ni abi ayub al ansari nettali na ko mooy ba yonent bi alei salaam di dund day kër gu nekk dañ fa daan rey benn xar mu yóbbaale waa kër ga yëpp waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne kër ga bu fa juróom fukki ñëpp nekkoon it ñu rey benn xar ñoom ñépp am nañ yoolu tabaski loolu gannaaw ba nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xar mi moom bi mu koy rey mu yéene ci mboolem xeetam mu yéene ci mboolem xeetam te it mbokk suñu borom nee na lan yanaal allaha luxumuha wala dimaa'uha yàlla soxlawul yàpp yi soxlawul deret bi ak taqwa moo yegg ci moom ndax mën ngaa waa xeetam yëpp bu ñu leen doon séddale am xar ku nekk lam cay joxe déedéet mooy ragal yàlla ga jóge ci yonent bi mooy bisu tabaski du jot mukk ab julit amul lu mu tabaski lu dul yàlla dana ko may yool bi ngiree xarma yonent bi alayhi salaatu wasalaam rendi loon xeetam sallallahu alayhi wa sallam bu dee ne xadis bi ñu mujjoon a jël mooy xadis abi hurayra radiyallahu anhu qaal qaal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man kaana lahu saa koo xam ne day am na ak yaatu ci wërsëg walam yudaxi ca moom day tabaskiwul falaa yaqrabanna musallaana bu mu jege suñu jullikaay رواه أحمد بن ماجه وصححه الحاكم لكن رجح الأئمة وقفا waaye lu borom xam-xam yu mag yi ñoom dañ ne lii day xadis mawquuf la ay waxi abi hurayra la mbokk xadis bi li muy wane mooy tabaski farata la ndax jaamu yàlla gu toll ni julli ji iit rasul salaa sallam doon wax ne nañ génne xattaa ñi ànd ak règle ñi fekke ñaan gi képp koo xam ne daañu leen def punition bu toll nii bul jege fa ñuy julli mooy def nga lu grave te loolu it borom xam-xam yi dañ ci am ixtilaaf lenn ci ñoom dañ ne farata la doonte li la ëpp ci ñoom dañ ne sunna mu akkada la sunna mu akkada mooy loo xam ne daal jullit bu farlu moom du ko bàyyi mukk doonte ne yeggul ci ne bu ko deful day am bakkaar bu doon xadis bi dëppoo nañ ne yonent bi moo ko wax du am benn sikk ci ni rey ga dee nekk farata waaye naam ñii génn nañ ko waaye lu bari ci borom xam-xam yi dañu ne lii waxi abi hurayra la ca abi hurayra am na ay temps moo nekkoon gouverneur ci madina ñu ne nag moom en tant que gouverneur am na droit yar xeetam ci loo xame ne nii du loi sunna waaye mu yar xeetam ci loolu mi ngi noonu ndax boobu jamono boobu gisoon na ni gàtt yi yomb na ba pare nit ñi sàggane tabaski ngiree nag punir leen ci loolu mu wax wax jooje mi ngi noonu ci déggin ya nga xam ne yenn borom xam-xam yi noonu lañ ko ci déggee wallahu subhanahu wa taala alam ñu jël yenn xadis
وعن جندب بن سفيان رضي الله تعالى عنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله متفق عليه وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين ضررها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تنقي رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنه الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جذعه من الضأن رواه مسلم
بوك حديث بيجي توب في صلو muy jundub ibnu sufyan radiallahu anhu qaal shahidtu l adha fekke naa ak tabaski maa rasulillahi salallahu alayhi wa sallam falamma qada salata ba yonent bi jullee ba pare binnaas ci nit ña nazara ila ganamin qad zubihat ci noonee la gis la nga xame ne nii ay gàtt yu ñu rey fa qaala man zabaha képp koo xam ne dafa rey qabla salaa avant ñuy julli fal yazbax shaatan makaanaha na reyaat beneen gàtt ca palaasu lam reyoon wa man lam yakun zabaha koo xam ne ni nag reyagul fal yazbax ala ismi llah ngalawaay na rey ci turu yàlla muttafaqun alayhi mbokk da ngay gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli na tabaski bi mu jullee ba pare mu gis ñoo xam ne ñoom dañoo rey yonent bi alayhi salaam ne képp ko reyoon avant ñuy julli na reyaat mooy wane na mbokk tabaski du tudd tabaski lu dul waa ji dafa julli ba pare looloo tax borom xam-xam yu bari di ko firee la suñu borom di wax ni fa salli li rabbika wanhar jullil ngir sa boroom ca nga rendi ngir sa boroom mi ngi noonu loolu nag gis nañu yeneen ci bari islam ni mu ko waxee mooy ku rendi avant ñuy julli waaye ku xis ba julli ba pare xamal ne bu la neexee nga daal di rendi même bu dee ne imaam rendiwul même bu dee imaam rendiwul donte ne lu bari ci yenn téere yu ñuy jàng fii day wax ne waa ji dem it na ànd ak imaam julli gannaaw ba mu rey gannaaw imaamam waaye mbokk nañu xam ne mboolem texte yi jóge ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam lam ñuy tere mooy rendi avant ngay julli waaye boo xisee ba julli boo rendee am nga tabaski même boo imaam amul woon tabaski am nga tabaski bokk na ci loolu luñ ci war a bey bàyyiloo xel bari na léeg-léeg ñoo xam ne dañuy nekk dëkk yu mel ni États-Unis yónni pour ñu reyal leen seen tabaski fii ndax ñoom foofa day jafe ci ñoom ñu rey tabaski donte ne mën nañu julli ci su ko defee itamit ku mel noonu yow mi nekk Sénégal nga xam ne da nga julli cinq heures de temps avant ñoom ñuy julli war ngaa bàyyi xel kañ nga koy reyal am tabaski war ngaa bàyyi xel ba yëg ne ñoom julli nañu nga doog koo reyal am tabaski fii mi ngi noonu ci wàllu googu wallahu aalam amma bu dee xadisul bara ibnu azib radiallahu anhuma qaala qaama fiina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaal yonent bi de taxaw na mu wax ñu ne arbaun la tajuuzu fi dahaya ñeent yi day du yey ñu koy tabaski du doon lu mag lu ñuy tabaski al awraau l bayyinu awaruha xar moo xam ne daa pat pattam ba daa di doon lu leer mu feeñ wal maridatu al bayyinu maraduha xar mu feebar bam leer feebaram ku ko gis xam ne kii daa feebar wala arjaul bayyinu dalauha ak xar moo xam ne dafa lafañ tànk ba dafa yàqu ku ko gis xam ne kii benn tànkam baaxul wal kabiratu lati la tunqi ak xar mu dem ba màgget ba nga xamee ni nii amatul benn graisse goo xam ne nii day nekk ci biir yaxam ya muy li ñu tudd ay yuq yuqaamatul te yaxam ya ngir mage yonent bi alei salatu wasalaam mu ni lii kenn du ko tabaski lii mbokk mooy ñeenti mbir yi nga xamee ne nii du daggan ci tabaski am na nag yeneen yu koy rafetal waaye sa tabaski bu muccee ci xar moo xam ne daa pat xar mu gumba nag la chaque ne kooku mooy waxi nappi mooy waxi noppi xar mu patt ba daganul xar mu gumba waxi noppi waaye it patt bi day leer ba ku ko gis xam ki benn bët la feebar bi day leer ba ku ko gis xam daa feebar lagg gi day leer ba ku ko gis xam bii daa lagg gannaaw ba mage gi day mage ba nga xamee deseetul wenn yàpp mi ngi noonu loolu la rasul sallallahu alayhi wasallam ne lii moom du dagan nit di ko tabaski amma bu dee xadis bi ci topp mooy xadisu jabir radiallahu anhu qaal qaal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa tasbahu illa musinna ngalla waay bu ngeen dee rey bu leen rey lu dul loo xam ne daa ami at musinna mooy loo xam ne atam mat na ba mu dugg ca ñaareelu at ba illa an taassara alaykum lu dul mu jafe ci yéen fa tasbahu jazaa min addaal ngeen rey la nga xam ne nii day nekk am kuy ca xariya jazaa mooy loo xam ne paase na juróom benn weer loolu kon muy wane ne mbokk soo amee mooy pour rey xar mu am at ngalawaay bul rey xar mu amul at amma nag su say moyen yëggul ci xar mu am at xar mi bu demee ba passé juróom benni weer su booba dana daggane ñu tabaskee xar mu mel noonu loolu moo aju kon incha allah ci xadis ba mu ñu jàng
وعن علي رضي الله تعالى عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدافعة ولا فرقاء ولا شرقاء أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وعن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على اذنه وان اقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا اعطي في جزارتها شيئا منها متفق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم
kon xadis yi nga xam ne moo ci topp wa an ali radiallahu anhu qaal أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن yonent bi alei salaam dañu doon sant ñuy teral bët ya ak nopp ya ay ñuy rey xar yoo xam ni ay bët yu rafet lañu yor ak nopp yu mat sëkk lañu yor wala nu daxi bi awra ne bu ñu tabaskee mukk xar mu pat wala muqaabala wala xar moo xam ne nii ca catu nopp ba dañ caa am lum ca dagg muy lang wala mudaabara wala xar moo xam ne nii gannaaw nopp ba dañ koo xar muy lang wala alxarqa wala xar moo xam ne dañoo xar nopp ba ci digg ba muy lang wala sarma wala xar moo xam ne nii bëññee dañoo foq axrajahu ahmad wal arbaa wa sahahu tirmidi wa ibni xibban wal xaakim mbokk kon xadis bi dem ñuy won mooy la yonent bi alayhi salaam bëggoon ci tabaski mooy na bët ya rafet na nopp ya mat amma xar moo xam ne bët ya am na lu ci sikk wala nopp ya am na lu ci sikk loole buñ ko tànn ci tabaski waaye borom xam-xam yi dañ naan tabaski ko daggan na waaye nekkul lu ñu sopp nekkul lu ñu sopp lu dul mu yegg ci ñeenti yi njëkk a jàng mooy awra bi ñu jàng nii bi ñu mujj a jàng mooy patt la boo xam ni patt bi léeroo ku amul seet lu dëgg du xam ne daa patt amma patt bi ñu njëkk a jàng mooy boo xam ne patt bi dafa leer moo tax yonent bi ne bayyinun awruha kon ñeenti xar yéle kenn du ko tabaski patt bu leer lafañ bu leer feebar bu leer màgget gu leer amma yi mu mujj wax soppuñu ko ci tabaski waaye ku ko tabaski it da ngay gis ne am nga tabaski mi nga noonu amma beneen xadis bi ci toppit ali moo koy nettali an ali ibn abi talib radiallahu anhu qaal amarani nabiyu sallallahu alayhi wa sallam an aquma ala budunihi yonent bi nee na ma taxewe ko budun mooy yamuy rey ca ca ca muna ca ta ajam ga muy nekkoon téeméeri giléem wa an uqassima luhumuha sant na ma ma séddale yàppam wa wa juludaha ak derem ya wa jilaalaha loolit lu daan nekk la ca suufa der ya nga xam ne mooy protéger giléem yi ci tàngaayu jant bi ak sedd bi loolu lépp mu ne naa ko séddale alal masakin ci miskin ya wala uti fi jazaratiha minha shay'a ca it bu ma joxee ci fees gën leen di fees ci yàpp wa ci dara muttafaqun alayhi mbokk bu ñu xoolee rasul sallallahu alayhi wasallam bi mu ajee ji màkka li ko waroon muy benn gàtt wala mu bokk ak juróom-ñaari nit benn giléem waaye rasul salaa sallam téeméeri giléem la rey téeméeri giléem la rey bi mu reyee giléem yi wala juróom benn fukk yi ak ñett yépp ca loxoom bu tedd ba la leen loje te xam ngeen giléem na gën ci niñ koy rey mooy dañ koy taxawal ñëw ci côté baat bi tolloo xol bi bojj ko paak deret ji day daal di sànni mu daal di daanu loolu ci lay gën a gaawe dee nga jël ko di ko rent loolu yonent bi alayhi salaam kon juróom benn fukki giléem ak ñett ca loxoom bu tedd ba la leen loje sallallahu alayhi wa sallam jox ali mu loj la nga xam ni moo ca des gannaaw ba mu ne ko nag ñi koy fees nañ jël xaalis fay leen waaye bu leen kenn fayee ci yàpp bi bu leen kenn fayee ci der yi te loolu it di erreur bu ay nit mën a def woo feeskat ne ko kaay fees léegi boo paree nga jël der yeeg tànk yeeg bopp bi yóbbu muy sa pay déedéet loolu kay buy am da nga koy sarax wala nga may ko ko waaye li ngay fees moom kenn wuru ko fayoo ci xar mi mi ngi noonu ci lii alsu salaa sallam jàngale ci loolu ndax da nga koo def ca yàlla tax donc loo ca fayee ko waat la nga defoon day doon loo xam ne nii lu manqué la xadis bi ci mujj ñu mujj koo jël mooy xadisu jabir ibn abdullah radiallahu anhuma qaal naxarna ma annabi salaa sallam amal hudaybiya al badanatu an sabaa walbaqara an sabaa rawahu muslim jaabir nee na at miñ defee Hudaybiya mooy juróom benneelu at bi yonent bi def Madina nee na ñun dey dañ doon def juróom ñaari nit ñu nekk dañ daan bokk la nga xame ni nii moom mooy benn xar dañ daan bokk benn nag ak juróom ñaari nit yoo xam ne dañuy bokk benn giléem loolu it mbokk mi wañe daggan na ci tabaski juróom ñaari borom kër dajale seen xaalis dem jënd benn nag bi sa tabaski bi ñu rey ko def ko juróom ñaari paar ñoom ñépp am nañu yoolu tabaski loolu nag du daggan ci xar ñaari borom kër mënuñoo séddali ko reyum xar di ko séddoo waaye bu dee ci naga wala giléem dina daggan ba baa ñu yegg juróom ñaar su ñuy wax dana dagan ci juróom-ñaar kon juróom taxul ñuy wax wala ñett taxul ñuy wax te loolu ñetti borom kër buñ joxewoon ku ne cent mille dem jënd nagum trois cent mille rey ko seddoo am nañ tabaski loolu kon mbokk moo aju ci bunt boobu nga xam ni mooy buntu tabaski ñu jël beneen bunt bi nuroog moom ca mooy buntu gàtt ba ñuy rey ca ngénte
باب العقيقة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق لكن رجح أبو حاتم الرسالة وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة رواه الترمذي وصححه وأخرجه أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه وعن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي
kon mbokk bu ñu xoolee ci la nga xamee ni nii mooy suñu bind bu mujj incha allah mooy bunt bi nga xam ni moom la ñuy tuddee baabul aqiqa aqiqa dañ koy wax la nga xam ni dañ koy rendi mi ngi noonu am na ñu koy delloo it ca karaw gay génne ca liir ba waaye mi ngi gën a siiw ca la nga xam ne nii dañ koy rey comme ni ñuy tuddee udhiya mu gën a siiw la ñuy rey bi su tabaski an ibnu abbas radiallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم عاق عن الحسين عن الحسن والحسين كابشا كابشا ابن عباس من دي يونيتي بالي السلام مو ريال حسن ak xusaynu muy ñaari sëtam ya ku nekk ab gàtt rawahu abu daawud wa saxaxahu ibnu xusayma wa ibnu jaawud wa abdulxaq lakin rajaha abu xaatim irsaalah waaye abu xaatim bu na xadis mursal la wa axrajahu ibnu xibban min xadis anas naxwahu ala kulli xaal mbokk xadis bi nga xam ne am nañu jàpp ne lu jokk la ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu jàpp it ne am na ko dagg ci ña nga xam ne ñoo ko doon nettali waaye jubluwaay bi mooy lan mooy ki nga xam ne mooy rasul sallallahu alayhi wa sallam di soññe sëttam bi nga xam ne Fatima moo ko jur moo ko Ali nga xam ne rakkam la yu ci ñoom moom moo leen utal ku nekk gàtt bañ ko reyal ñu ngi noonu moo leen utal gàtt bañ ko reyal te loolu ba tey léeg-léeg muy am ci ay famille yoo xam ne nii am na mag ñu koy bàyyi ba léegi mooy kilifa gi nekk ci famille bi nekk bàyyi ña fa nekk heure bu ngénte amee mooy indi xaram mooy tànn turam waaye loolu mbokk ci ay aada rek la tant que mi ngi jëm ci luy defar islam du ci wax dara tant que mi ngi jëm ci luy defar mais nag nañu xam ni bàyyi bi jur moom lañ teg mu rey gàtt bàyyi bi jur lañ tànn lañ jox pour mu tànn turam bu ko neex mi ngi noonu kon ñoom ku nekk mi ngi la reyal benn gàtt muy Xasan ak Ousseynu ñu bëri dañoo jàpp nag ne ay cheikh lañu waaye duñu ay cheikh dañoo magante benn at lañ magante ñoom ñaar benn at lañ magante loolu tax bi ñuy màgg ñu nekk presque ay cheikh amma bu dee xadis bi nga xam ne da cee topp muy xadisu Aïcha radiallahu anha anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amarahum an yuaqa an algulaam shaatan mukafiatan wa an aljaariya shaa yonent bi alei salaam ne waaye ku ci am doom bu góor na ko reyal ñaari gàtt yu tolloo ñaari gàtt yuy weccante wa bu dee doom bu jigéen nag ñu reyal ko benn gàtt rawahu tirmidi wa saxahu wa axrajahu ahmad wal arbaa an umm kurzin alkabiya nahwa mbokk kon gis nañu ne xadis bi nga xamee ne nii ñooñu ñoo ko solo ñu bëri ci borom xadis yi solo nañ ko te mooy yonent bi alei salaam da daan digle ne ki am doom bu góor na ko reyal ñaari gàtt ki am doom bu jigéen mu reyal ko benn gàtt te loolu it gis nañu ne suñu boroom lu bari ci ay cër day jox góor ñaar jox jigéen benn masalan bu doon miraasa danaan bu ñu bu bàyyi bi bàyyi alal nañ jox ku góor ñaari cër jox ku jigéen benn cër tabaski it mu ne ma rey gàtt it mu ne nañ rey ku góor ñaari xar ku jigéen ñu reyal ko benn xar am na it yenn borom xam-xam yu ci gisoon politique mooy arab bi dañoo bañoon doom bu jigéen léegi nag ñu ne la doom bu góor bi ñaari xar ngay wuti bu dee bu jigéen moom benn rek doy na loolu dana woyof ci ñoom ndax ñu rey benn xar donte ne ne xadis bi tamit am na borom xam-xam yu koy jëfe jàpp ne moo gën donte ne ne lu bari ci ñoom it dañ ne tudd daal benn xar doy na ci moo gën a siiw rawatina ci mazhab Maalik mooy benn xar bi doy na ci boo ko reyle benn xar sa jaan wàcc na la nga xam ne di rey ñaari xar loolu moom ay ngëneel la waaye doom bu nekk benn xar doy na ca dalil ba mooy Xasan ak Xuseynu benn xar la leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam reyal ci seen tudd bu dee xadis bi ci mujj di xadisu Samura radiyallahu anhu naam anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaal kullu xula mu ne bépp ngóor murtahinun bi aqiqatihi dañ koo tayle ca la nga xamee ni nii mooy gàtt bañ koy reyal tusbahu anhu yowma sabi'ihi ñu war koo reyal ca bisu juróom ñaareel ba wa yuxlaq war ko caa wat wa yusamma war ko caa tudd rawahu ahmad wal arbaa wa sahahu tirmisi tirmisi it soloo na loolu mbokk gis nañu rasul salaa sallam nee na bépp xale dañ koo tayle ca gàtt bañ koy reyal am na ci lenn ci borom xam-xam yi dañu ne doom day ramm baayam ngi noonu doom day ramm baayam rasul salaa sallam yi ngi wax ne bépp xale bu faatu ca majeuragul yowmal qiyaama suuf seen borom ne leen dem leen dugg àjjana dañuy dem ba buntu àjjana ñu ne yàlla nag duñ dugg ci suñu way jur ñëwul doom it lépp lum liggéey dañ koy bindal way juram ñu ne waaye loolu charte ba mooy waajur bi reyal ko gàtt allahuma nag am na ay borom xam-xam yu dàq loolu ñoom dañ ne gàtt bi loolu sant yàlla la yàlla may na la doom xañ ko ñu bari nga jël ab gàtt rendi ko ngir sant yàlla gannaaw ba njëriñu gàtt bi day dellu ci xale bi moo tax yonent bi ne ñu reyal ko xale bi gàtt gàtt tudd reyoo ko pour yow yaa ngi koy reyal pour sa doom rey bi nga koy reyal gàtt day tax xale bi barkeel day tax xale bi mucc ci seytaan day tax xale bi tamit yomb jibbalul yàlla jalla wa ala loolu kon moo tax mu ne ñu war ko koo reyal kañ lañ koy rey te bisu juróom-ñaareel ba loolu mooy la ca gën ndax day fekk ne dund na benn nattuwaay ci jamono ku ne xam ne jamono yàlla ko séddale ay at at yi mu séddale leen ay weer weer yi mu séddale leen ay semaine xale bi nga xam ne nag juddu woon na tey masalan tey la dimanche kon juddu na dimanche fekk lundi mardi mercredi jeudi vendredi ba samedi kon semaine bi yépp fekk na ko am na sept jours ñu ne kon septième jour boobu nañ ko ca reyal ab gàtt loolu ngëneel la waaye bis ba mu juddoo bu la neexoon reyal ko gàtt bi ñu noonu bu jafe-jafe amee ba sept jours yi passé amoo loo ko reye it am na ay xadis yoo xam ne boroom xam-xam yi dëppoo wuñ ca waaye ñu bari ci ñoom dañ koy jëfe ñu ne bàyyil ba dimanche ba dellu siwaat dimanche ba dellu si na amul ñu toog ñaari fan nga am ñu ne bul rey bàyyil ba dimanche ba dellu siwaat loolee da ngay gis lu bari ci borom xam-xam yi loolu lañ ca rafetlu waaye xamal ni rey bi ñuy reyal xale bi ab gàtt bu juddoo fuñ ko reya baax na fam gëñe nag mooy bisu juróom ñaareel ba rasul sallallahu alayhi wa sallam ne wa yuxlaq bis boobu ca lañ ko war a wat ca it xam nañ ne xale bi juddu tey pour nga wëlbati ko di ko wat day fekk bopp bi nooy na nooyaay boo xam ne yombul amma su defee une semaine da ngay gis na bopp bi der bi dana dëgër ba wat gën koy wat du ko lor mi ngi noonu su ko defee loolu boo ko mënee wat ca juróom-ñaareel ba xëyrul soo amee ngant amoo ko ko mën a wat ngir ñu bari buñ ko watee dañ koy gaañit loolee da ngay gis ni beneen bis buñ ko wat dana baax boroom xam-xam yi am ixtilaaf ci ndax doom bu jigéen daañ ko wat wala duñ ko wat am na ci ñoo xam ne dañ ne li yonente bi alei salaam nee na kullu xulaam xulaam ci làmmiñu arab mooy doom bu góor doom bu góor kon doom yu góor yi rek la ñuy wat am ñeneen ñu ne déedéet dañ ciy déggaale jigéen ndax yonent bi ne nañ ko reyal ab gàtt ca kenn du wax doom yu jigéen yi doom yu góor yi rek la ñu reyal gàtt ñaareel ba ñi nga xam ne dañ ne jigéen ñi kenn du ko wat dañ ne ci sharia jaamu yàlla ci sharia jigéen nuñ ko wat loolu tax jigéen bu ajee màkka góor bi aj màkka wat karawam mu set moo ëpp tuyaa ba muy wàññi karawam amma jigéen bu ajee màkka moom ay cetti karawam rek lay dagg ay dagg mais du wat loolu kon ñu ne doom bu jigéen duñ ko wat almuhim ixtilaaf looy bu am ci borom xam-xam yi soo amee doom bu jigéen wat dara newu ci am na borom xam-xam yoo xam ne lañ koy gisee soo gisee ko am doom bu jigéen wattu ko it daa doyloo waxi borom xam-xam ya jàpp ni doom bu jigéen bi de su ko wat lu dul nag ñu gis ni karaw ga mel ne melokaan boo xam ni wat ba nga koy wat dana ko tax mu gën a maase gën a rafet loolu moom day dellu ci wàllu wérgu yaram amma li rasul sallallahu alayhi wasallam wax ne amma li rasul sallallahu alayhi wasallam wax ne ba tey dañ koy tudd dañ koy tudd ci bisu juróom-ñaareel bi loolu it mooy la gën mooy la gën mooy xale bi ñu bàyyi ba bisu juróom-ñaareel bi ñu tudd ko mais ndax loolu rekk war a nekk déedéet du loolu rekk war a nekk mooy mën na nekk sa doom bis bu juddoo nga tudd ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doomam bi mujj a am dafa xëy suba ne sahaaba yi biig ci guddi day yàlla wërsëgal na ma doom tudde naa ko sunu baay ibrahima loolu kon mi ngi noonu préparé woon nga tur bi ngay war a tudde sa doom judd na bu la neexee nga jóge ca maternité ba ah soxna si kat am na doom tudd naa ko Fatima soxna si am na doom tudd naa ko Ibrahim jeex na mi ngi noonu loolu dara newu ci loolu it muy wan erreur bu rëy boo xam ne léeg-léeg imam yi caamin yi dañ koy def dañuy ñëw indi xale bi pour ñu tudd ko ñu ne non non non non dem leen il faut ñu wat ko ba pare tardel nit ñi foofu mais xale bi kay bu mu juddoo mën na mënees na ko tudd wat tudd bi ñu koy tudd ak wat bi amul benn benn niñ koy waxee relation amul benn relation bal xale boobu ñuy indi di ko indi ci imam pour imam ñaanal rek la ko amul benn relation bu am ak ak ak tuddi ñaan buñ koy ñaanal rek la waaye bàyyi mooy joxe aw turam donte ne ni da bokk na lu ñu daan barkeeloo jamono yonente bi alei salatu wasalaam nit ñi buñ masoon am doom indil ko ko yonente bi ñaanal leen jël tur bi wax ko bu ko defee ñu ni tur bi yonente bi moo ko jëkk yëkkati loolu ñu ciy barkeeloo waaye gannaaw loolu mbokk lu ñuy tardi ni ñëwul am foofu gannaaw ba ñu war koo tuddit nañu xam ne mbokk aw turit am na ci ay mbir yu ca nekk am na tur yu ñu sopp am tur yu dara nekkul am tur yu xaraam tur yu ñu sopp mooy tur boo xamee ni nii turu lislaam la yëcce gën mooy tur bu dellu ci yàlla abdurahman abdullah abdulmalik loolu moo gën ci tur yi gannaaw ba tur yoo xam ne ni day nekk turu lislaam la doon turu ay yonent la wala turu nit ñu baax ñi gis ngeen sànq yonent bi salallahu alayhi wa sallam bi mu amee ab sëtam bi doomu fatima jur ak ali mu tudde ko xasan xasan mooy koo xam ne ni ku baax ki te mooy yaakaar xale bu baax ëllëg mu am rakk mu tudde ko xuseynu mooy ko baax ku ndaw ki gis ngeen mu am beneen rek mu tudde ko muhsin mooy ki nga xam ne day rafetal te loolu lépp mooy gaat nga gaat nga gu rafet te la nga xam ne mooy ak njabootam te xasan boobu mu tudde woon xasan it taxaw na mu ne sama doom bii day ko yàlla barkeel la yàlla dana ci defere ëllëg julit ñi te jamono bi fitna amee diggante Muawiya ak Ali ibn Abi Talib ba fitna ba tar bañ mujj rey Ali ñi àndoon ak Ali yépp dañ ñëw ci Xasan ne ko dañuy jaayanteeg yow nga nekk amirul muminin mu ne déedéet li tuuru ci dereti jullit ni doy na daa di yónnee ay ndaw jubóob Muawiya loolu ñu tudde ko amul jamaa mooy atum jubóoma loolu it kon mbaax ga ca yonent bi jublu woon loolee da ngay gis ne wuyu na ko gannaaw ba it mbokkoo am na tur yoo xam ne bu dee tur ba amul lenn lu ñaaw lu muy wane tamit dara newu ci tur bi amul lenn lu ñaaw lu muy wane dara newu ci waaye léegi mu dee sagari sën kenn bëggul ak lépp loo xam ne nii dafa jëm ci wàllu tudde ay xàmb yooyu yépp mbokk jullit da ko war a moytu même buñ la ko tuddee boo màggee war nga ko changer utal sa bopp turu rafet ak bari ay sahaaba yu daan ñëw ci yonent bi alayhi salaam indi tur boo xam ne tur bu ñaaw la yonent bi changé leen ko may leen tur bu rafet mi ngi noonu rawatina tur yooyu dañ la koy woowee yowmal qiyaama yal na yàlla barkeel ñu barkeelal ñu suñu njaboot nangul ñu suñuy jaamu yàlla wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain wala kulli xaal loole moom ci déggini borom xam-xam yi rawatina li gën a siiw ci sunu gox yi ci mazhab malik ñoom dañ naan koo xam ne bis bi nga judd amul guddi bis boobu kenn du ko compter waa ji judd na dimanche ji gannaaw fajar ci dimanche bi gannaaw fajar ñu ne kon guddi ga passé na ñu ne kon bis boobu moom duñ ko ci compter dañuy compter la nga xam ne mooy lundi bi moom la ñuy dem ba dimanche lay doog a amal juróom-ñaari fan amaa nag bu dee yeneen borom xam-xam yi nga xam ne ñoom dañoo gis ne bis bi ci la juddu kooku mooy premier jour am fokk ñu bis boobu la ñu mën a compter at mi ngay judd mooy sa premier at kon ñu ne bis boobu nga juddu juróom-ñaareelu fan ba ca lañ koy tudd loolu da ngay gis ne ala kulli xaal moom lañ jàpp ne moo gën a dëppoo sunna doonte ne ñaari wax yépp waxi borom xam-xam la jarul discussion rawatina yenn ndaw ñi ak seeni parents jarul xëccoo luñ ci def rek incha allah lu baax la wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw naam ah ndax ab charte la ci ne li ngay rendi fokk nga jublu ko xibla loolu moom gisuluma ko benn dalil gisuluma dalil lu dul ne fekk nañu bu ñuy rendi ñuy jublu xibla mais ndax charte la nga jublu ko xibla loolu moom gisuluma ko benn dalil wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ala kulli xaal kon mbokk ñoo day naam waaw bismillah ñu mujjee ca mbokk ba la rek bismillah waaw waaleykum salaam wa rahmatullah daane noo waaw la ku li xaal mooy li ñu doon wax sànq rek dafa fekk tudd moo xam ne xale bi biñ ko watee wat bi setul imam bi tudd ko am ku ne imam bi waru ko woon tudd ndax xale bi wat bi setul ah waaw mu ah mu ne karaw gi karaw gi karaw gi sobe la ala kulli xaal la ñuy wax naan karaw gi sobe la mooy liñ jàpp ne la yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko tuddee al azhar waaye mbokku jullit doomu jullit nekkul loo xam ne ni day nekk sobe azala luñ koy tuddee aw lor loolee mbir la moo xam ne ñu dindi ko dafay gën ci moom waaye firiwul ne dafa nekk ab sobe ñaareel ba mooy li ma leen wax sànq xel munta nangu yonente bi alayhi salaam am doom ci guddi gi wat ko ci guddi gi doog ko tudd kon yonente bi tudd na doomam boo xam ne kenn wattu ko tudd bi ak wat bi ça n'a rien à voir doomu aadama mën ngaa tudd sa doom fekk juddoogul yonent yàlla muhammad ba ko yàlla tudd juddoogul yaxya ba ko yàlla tudd juddoogul isa ba ko yàlla tudd juddoogul nit ki mën ne jaba soxnaam ëmb mu ne man kat su dee fekk wu ma ko bu juddoo góor tudd leen ko ma demba jigéen tudd leen ko faati jeex na nit ñi xam ne loolu judd na nit ñëpp xam ne ni la tudd loolu moom mbokk nañu xam ne amul benn relation ak wat ba nga xam ne dañ ko cay wat wallahu subhanahu wa taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain